Souleymane Sidi Seck nekk doom ci journaliste bi Cheikh Yérim Seck moom moomee nga xam ne dañ ko doon toppee wàllum yàkkantaan euh, foofee ca Mbour euh, moom nag jot naa jàkkaarloog juge d'instruction premier cabinet bu Mbour ginnaaw euh, li nga xam ne dañ ko koy jiiñ ca beneen wàllaa ba nag mi ngi xam ne rek ne xale bi jigéen boobee nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon école te mu nekk koo xam ne jege woon na ko lool ñoom ñoom ñaar ñuy tëdd guddeeg bëccëg waaye tamit

nag moom du ba nangu benn yoon li ñuy teg ci kaw noddam mu koy nangu mbokk yi mbir maa ngi noonu dañ leen toppal xibaar bi lu ci mënti am ñu indi leen ko jàpp leen rek foofu tax logom ci diggante Souleymane Sidi Seck moomee nga xam ne moo séq ak benn xale bu jigéen bi nga xam ne jot nañ am coow jàppale les informations xam ne sax ne xale bu jigéen bi Louis la tudd mbir maa ngi noonu jërë ngeen jëf